dal leen ak ci AGT bi leen di jox leen a raw. AGT News. daleen ak ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp mi AGT News. njaxare ak xalaat bu tukkee cap militant bu droit de l'homme Sénégal jàppoon nañu ne kat réew la boo xam ne moo gën a dal ci Afrique li ko waxal nag mooy bala républicaine yi nga xam ne dañu koy wane saay su ne na ni ñu saxee dàkk ci démocratie. rawatina wàllum état de droit régime bu mës a jàll fii sangoor ba léegi daanaka am nay jafe-jafe ci wàllum politique muy ay crise waaye terewul nag lépp dañu koy saafara mujje am déggoo ba réew mi nekk ci jàmm karange gi sax fi dàkk ki nga xam ne nag moom mooy tabb ñi wax a nekk civil ak militaire daanaka dafa am force bu am solo muy askan wi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ci xalaatam ak lépp lu mu mën a jël ci décision la muy jiital mooy rek lépp lu jëm ci wàllum droit ñàkkum respecté pouvoir yi am ci réewum Sénégal muy exécutif législatif ak judiciaire danaka dafay daal di xajamal lépp li nga xam ne kon dañ koy sumb fii ci réewum Sénégal jàmm gi ak dal gi jàmmu Sénégal jaraloon na suñuy njiit lu ne moo tax saa bu ko daan laaj dañuy concerté wu di amal itam ay jaloog national wala sax médiation loolee nañ daan jiital saay su ne ngir rek jàmm joojee ñu mën ko sàmm waaye nag gis nañu at yu mujj yi la ne réewum Sénégal fi mu nekk nii dafa mel dafa dugg ci guuta démocratie gi daal di lompoñ lépp loo xam ne jëm na ci wàllum état de droit mel ni dañ koo màbbal institution yi nekk ci réew mi waroon am dëgër laay dafa mel ni fi mu nekk nii dañu leen a fejet ba dëgëratuñu benn yoon lépp li jëm ci wàllum caada ñu daal di koy màbbal itam gulet gulet askanu Sénégal daal di dund cruauté bu ni men tukkee ci seen wàllug liberté te lépp nag mu ngi tukkee ci ab président boo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko fal liberté publique yi ak droit à la justice liberté d'expression liberté toog di xalaat liberté ak droit d'association daanaka lépp doon ko fëkk ñu ko def nag mooy ñi yëngu ci wàllum politique ak magistrat yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal deret ji tuur na wala walangaanu fii ci réewum Sénégal ndax mbir yooyu yi nga xam ne doon ko fëkk te lépp nag li ko indi mooy na sénégalais yi ci seen bopp ñoo bëgg coppite ci boppu réew mi. jaloog nag wooteeti nañu ko bu mu nekk rek prox ndoll ci njiitu réew bi nga xam ne moo fi nekk nga xam ne dafa muus lool ngir mu indi la ti ay jafe-jafe ñoo xam ne ay inoson nañu. moo tax ñi nga xam ne dañoo génn kaso bi am liberté provisoire li war mooy mu daal di setal seen dossier defaral leen non lieu bu ko defee daañu amaat seen dignité humaine waaye itam dinañu xam ne kat ñi leen tooñoon ci wàllum yoon jubbanti nañu mbir yi. ndax li fi xew umpul kenn ku yeewoo ci réewum Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti réew. ci beneen wàll conseil constitutionnel génn na dogalam waaye dafa mel ni moom dafa raté rendez-vous bu am solo bi nga xam ne waroon na ko am ak askanu Sénégal askanu Sénégal boogee ñoo ko jox sañ-sañ ngir rek mu daal di topp lépp loo xam ne tukkee na ci constitution bu Sénégal moom ci boppam wax na ko ndax mu nga ca attendu 19 bi nga xam ne moom moo fees ci dogal bi nga xam ne génn na ko ci fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 waaye nag am na attendu boo xam ne am na ñuul ñuul ca biir mooy attendu 20 fañ ko doon xaaree dafa lajj ndax gannaaw ba mu ne élection présidentielle mënatuñ ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février teg ci mu daal di kase décret bi nga xam ne président jëloon na ko ba rek daal di dakkal processus électoral bi rawatina dogal bi nga xam ne moo tukkee ci assemblée nationale li ko askan wi doon xaaree mooy mu jàpp bés bu ñuy amal ay élections présidentielles Fouras daal di xëddeen jëlul boobule dogal la. loi bi ñu vote ci assemblée national daanaka dëppoowul ak nday charte réew bu Sénégal rawatina sacralité bi nga xam ne gis nañu ko ci disposition yi nga xam ne dañ koy caxat caxate bés bi yàlla sàkk conseil constitutionnel nag yéex na joxe dogal bi nga xam ne jël na ko. ndax am na ñuy xalaat second tour am ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëkkmal la donte ne ñu bari jàpp nañu ne élection présidentielle yi ñu dëkkmal du am deuxième tour ndax am na ñenn ci kujje politique gi ñu naan daal bu ñu tàmbalee wote yi waxtu yu néew nañu leen may ngir rek seen candidat dégg wéewu bu boobaa résultat définitif yi dinañ ko siwal lu weesu ñaari fan ci weeru avril atum 2024 kon du jar ñuy xaar second tour waaye nag buñ sukkandikoo ci vingtième attendu bu décision bu conseil constitutionnel bi nga xam ne boîte à Pandore nañ ko tuddee jàpp nañu ne daal bu fekkee ne amul benn àpp boo xam ne jël nañu ko ngir amal yooyu la élection présidentielle loi bi ñu sukkandikoo fii ci réewum Sénégal li mu wax leer na mooy ne dañu war a reprendre à zéro campagne électorale bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum 2024 su ko defee nag day indi jaxasoo maanaam confusion ak euh, situation bu chaotique la nara indi fii ci réewum Sénégal njeextalu coup d'état bi nga xam ne nag dafa avorté bu boobaa la ko askanu Sénégal di tàmbalee yëkk rawatina nag ne président bu yees bi nga xam ne nañ ko tabb boo mayul fête de l'indépendance muy Sénégal bi mu moomee boppam di ñeenti fan ci weeru avril atum 2024 boo mayul kenn du ko jiite di jeexal rek di wax ni askan wi léegi mën nañu ràññee. erreur yi nga xam ne dañ koy def ci tànneefu ñi leen di jiite ëllëg rawatina nag tànneef yi nga xam ne dañ koy def ci àttekat yi nga xam ne ñoo leen di toogal ci bërëbu àttekaay yi muy bataaxal bu tukkee ci Ciré Clédor Ly di avocat à la AGT News. Merci de choisir AGT News pour vous informer. Inquiétude et libre opinion d'un militant des droits de l'homme. Le Sénégal a été considéré comme le pays le plus stable en Afrique, en raison de ses valeurs républicaines et de son ancrage à la démocratie ainsi qu'à l'état de droit. Tous les régimes politiques qui se sont succédés ont pu conjurer les crises politiques grâce à l'usage d'une violence d'État strictement proportionnée et nécessaire au rétablissement de l'ordre et de la sécurité publique. celui qui nommait aux emplois civils et militaires disposait de la force publique, mais avait toujours à l'esprit la primauté du droit, l'impérieuse nécessité du respect de l'équilibre des pouvoirs, la cohésion sociale dont le cousinage réel ou mythique était un socle garant de la paix et de la stabilité. La paix et l'image du Sénégal étaient à leurs yeux inestimables. La concertation, le dialogue national ou la médiation valaient leur pesant d'or et rétablissaient toujours une entente durable ainsi que la cohésion. Malheureusement, le pays a sombré dans les bas-fonds d'une déchéance démocratique, de l'effondrement de l'état de droit, de la dégénérescence de l'ensemble de ses institutions, de la décadence culturelle et jamais le peuple sénégalais n'a été victime d'autant de cruauté et d'atteinte aux libertés dans l'exercice d'un pouvoir d'État par des personnes qu'il a élues pour le servir. les libertés publiques et le droit à la justice, la liberté d'expression jusqu'à la liberté de penser, la liberté et le droit d'association ont été confisqués par des hommes politiques et des magistrats. Le sang a à flot pour la confiscation du pouvoir. La Ligue des institutions ayant à n'en pas douter une unité de dessein, s'est créée et renforcée pour contenir le désir, le choix et l'aspiration des Sénégalais à une rupture et à un changement structurel. L'appel au dialogue ne doit nullement occulter la face hideuse de Janus, et être une occasion pour continuer intelligemment de laisser la bride autour du cou d'innocentes victimes avec des libertés provisoires en lieu et place de nos lieux qui restituent la dignité humaine et mettent fin à l'injustice collective parce que vécue et ressentie par tous ceux qui, au Sénégal comme hors de nos frontières, ont suivi les événements douloureux. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a une fois de plus raté son rendez-vous avec le peuple, lequel lui assigne le devoir de veiller sur le respect de la Constitution et des valeurs qu'il a lui-même bien énoncées à l'attendu 19 de sa décision 11-C-24 rendue le 15 février 2024, car l'attendu 20 suivant laisse un goût d'inachevé et une incertitude qui ne pérennise pas la relation stabilité observé par les citoyens depuis qu'il a été saisi de la question sous-jacente du respect du calendrier électoral. La réponse à cette dernière question était pourtant tranchée et scellée lorsque le Conseil a annulé la loi votée par l'Assemblée nationale et le décret abrogeant celui qui avait fixé la date des élections au février car le décret d'abrogation disparaissait avec ses effets juridiques et celui abrogé était désormais censé ne l'avoir jamais été. Ainsi, vu l'intérêt majeur du contentieux qui lui était soumis ainsi que ce qui pouvait être considéré comme une évidence, à savoir que la loi votée par l'Assemblée nationale était incompatible et inconciliable avec d'autres dispositions de la Constitution et la sacralité de la disposition tripotée, Le Conseil constitutionnel a aussi tardé à rendre sa décision, alors que l'hypothèse d'un second tour n'est pas exclue par la loi électorale, même si les Sénégalais ont massivement exprimé leur choix d'en finir avec le système actuel dès les premières heures du scrutin. Si le scrutin est transparent et loyal, le Conseil constitutionnel n'aura probablement pas à proclamer les résultats définitifs au-delà du 2 avril 2014. ni à s'inquiéter d'un peu probable second tour. Par ailleurs, le 20e attendu de la décision du Conseil constitutionnel est une boîte de Pandore Si une date n'est fixée pour le jour de l'élection conformément aux lois en vigueur et pour la reprise à zéro de la campagne électorale le 25 février 2024, la situation sera davantage plus confuse, chaotique et les effets pervers du coup d'État institutionnel avorté se feront sentir, sans compter le risque pour le nouveau président élu de ne pas présider la fête de l'indépendance du 4 avril 2024. Les peuples mûrissent toujours des épreuves cruelles que leur font endurer ceux qui ont la charge et la mission de les servir. Ils apprennent de leurs erreurs dans le choix de leurs dirigeants politiques et le mode de désignation de leurs juges. Un texte signé Maître Cyril Clédorly, avocat à la Cour.